ne bu ñu assemblée mais dañuy installer <laughs> haute cour de la justice té xamna ci liste bi sax les ko ci gaay ciblé na cour de la justice parce que amna fu ak ñoo leen suñu bu baaxa baax de la justice parce que instant li tax ngay gis ñen ñi di di di wax xamna ne japp ndax seen bubu bi ñu am Macky Sall dem soppi ba mënu leen en ce moment ci condition yi pour te dire que nous dañoo dañoo def seen mbir ba pare naka la koy maquiller encore une fois mais au cours de la justice dina taxaw te ñoom ñëpp dinañu wuy benn par benn kenn du kaw parce que nous ñu def nii alalu askan woowu ñoom li jël bu ko ñu régler problème ndax malgré situation catastrophique bi nous fi fekk ñu di tenir réew mi dox ndax ingéniosité équipe yi ñu rendre en tout cas euh, ñu leen féliciter di encourager xam équipe finance mo xam équipe économie la xam ministère yi ak directeur yi liggéeyu yaxanal bi nga xam ñu koy def parce que day ñu réduire train de vie de l'État mais ñun bi on a fait réduire le train de vie de l'État ñu permettre continuer AIBD da nga budget voyage mais c'est extraordinaire ce que que que je suis en train de vous dire Cela dit que dañ fo ci parce que budget voyage ci lu rek millions une même période Cela dit premier semestre 80 millions ci voyage AIBD 1er janvier be ba ba 31 mars nous, avril ba août comparé à nous, économiser nous 55 milliards. Millions, astagfirullah. Donc, pour vous dire que, qui dynamique que nous Non nous l'avons fait sur téléphone, ils étaient à 19 millions par mois. Nous réduisons à 10 millions déjà. Et ça va continuer. Encore une fois, c'est ça le vrai débat. Nous sommes là, nous sommes là, ils nous déposent des recours, c'est une diversion. Et je vous dis, il y a des élections. qui ont dit qu'ils voulaient aller à l'élection. Nous, nous, xalaatuñoo def recours parce que dañoo bëgg ñoom ñëpp ñu boole muy nu ko doon ah seen ba nee way juróom da leen daan bañ mat fukk mu làpp leen dañ leen bëgg a Dakar ak ñi wax chef de l'opposition ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom wax ñooy borom tey ñu jëw dàqatu ci liste nationale yi ñëpp la ñu duma dañuy par force ñi doon forcer seen boobu waajal seen i pour dugg kaso sax dañ ne leen da ngeen di bëre ba pare non day mënul ñàkk parce que mbir mi dina neex de léegi nag ñoom seen problème mooy fan la ñuy campagne ak ban xaalis la ñuy